ci dee muy waxte ne waaye nag li nga xam ne mooy li am solo mooy su bis pénc baa nga jot li nga xam ne moom mooy euh, sa euh, mooy li nga xam ne nga am texe nee na te loolu nag képp koo xam ne mucc na ci sawara kooku dana tabbi biir àjjana mu ñu xamalit ne te kooku dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne moo tonawu moo gañe ñu ngi yëgal tamit ne àddina gi nga xam ne nekk nañ fi lu gàtt la te ay bànneex yoo xam ne yu gàtt yu jeex rekk fi nekk mhm. kon lii moom la indil ci aaya bi loolu nag li ñu ci jàngatee mooy àddina gi ñu nekk kenn saxu fi muy nit muy jinne muy malaaka lu dara ji kawe kawe kawe lu xam-xam bi bari bari bari kenn saxu fi voilà budde faatu dana am kenn rek mooy ki nga xam ne moo amoon ba dara amut ak ki nga xam ne mooy fi des su demee ba lépp jeex yàlla sunu borom kooku mooy ki nga xam ne moom moo sax waaye des lépp lennul sax amut kenn ku nekk faatu dana am muy bën bunt bu am solo boo xam ne indi nañu ko nit lu mu bari bari xam-xam lu mu bari bari am-am lu mu bari bari daraja waaye dana fi jóge kon loolu nit ñëpp ñoo si maase ànd yem dana fi jóge suñu fi jógee tamit nag danañ teewal ci kanamu suñu suñ teewee ci kanamam ñaar dana teew suñ kanam muy ajjana wala safaan ba wala iyaasu billaah kon nag bis boobu day laaj waxtu wu nekk ñu koy fàttaliku ndax dafa bokk ci ponk gëm gëm gu wér cëng ne bis boobu dana ñëw te bis su bis bi ñëwee di bis penc danañu atte kenn ku nekk sa jëf ju baax danga gis pay ga jëf ju bon nga tamit danga gis li nga xam ne moom la lay jural moo tax kon fàttaliku bis boobu dana am solo lool yàlla sunu borom di ñu xamal ne àddina gi ñu nekk lu gàtt la bànneex yi fi nekk bànneex yu gàtt la lu jeex la waaye li nga xam ne moo nekk fa sunu borom nag day loo xam ne moom du jeex lu sax la dakk ba faw kon suñ yittee dafa war a doon di sakku loolu di wut loolu te xam ne àddina ji lu gàtt la te ci biir gàttaay googu nag lañuy ñuy liggéey la loo xam ne mooy yor mhm. ëllëg nga xam ne yemul fenn kon lii mhm. mooy fàttali gi nga xam ne mën nañ ko génnee ci ay yi nga xam ne moom lañu tànnoon tey jii jërëjëf eh, sëñ Mourtada Seye sëñ Mouhamadou Lamine Diouf mu mel ni kon doomu aadama bi dafa war a di fàttaliku xam ni ba dara doonul dara eh, borom bi subhanahu wa taala moo fi nekkoon tey jii itam suñu delloo ba dara dootu fi nekkit moom moo fi des ci wéetaayam ci nguuram bi kon loolu il faut ñu xam ni lépp lu am moo xam lu ñu teg suñuy gët la wala lu ñu euh, gisul euh, mu borom bi subhanahu wa moo ko sàkk loolu ci barke yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam waaw suñu Moussa lu am solo la boo xoolee euh, yi dafa tàbbi rek ci ponki gëm yi nga xam ne jullit bi suba bu xëyee dana wax gën ngaa néew juróom yoon loo xam ne lii mi ngi ci wa anna lazi jaa bihi muhammadun xaqun wa anna aljannata xaqun wa anna naara xaqun wa anna saaxata aatiyatun laa rayba fiiha wa anna laaha yab'asu man fil xubuur muy juróom yoo xam ne saa su nekk nit ki da koy fàttaliku ba noppi itam da ko war a gëm gëm gu wér te bokk na ci yooyu mooy euh, dina am bis boo xamante ni bu ñëwee du jaas waaye itam ñi nga xamante ni ñoo nekk ci seen bàmmeel suñu borom dana leen dekkal loolu nag moom la sëñ bi di wax ne lépp loo xamante ne doomu aadama jëf na ko muy lu néew wala mu bari xalsat naa gis ak payam bis bi nga xamante ni mooy bisum njàqare ba wa kullu ma ajraahu shaxsan min amal fa sa yara jazaahu yawmal wajar nee na ginnaaw nag loolu day am suñu boroom daf ñëw indi fii ngir ñu faggu fi loo xamante ni suñu demee fële mu nekkal ñu fa mm-hmm. ndax nee na euh, sëñ Abdoulaye Mbacke da ko misaal ci njàngale mu gàtt wax ne gàttaayab àddina lu mat a xam la ndax li dale fi barab yem fi barab lu mu doon gàtt na waaye li àddina yi gàtt gàtt doomu aadama ko gën a gàtt ndax doomu aadama boo gis ak lu gudd gudd aw fan fi la fekk àddina fi la ko bàyyi doomu aadama ci boppam itam li muy gàtt gàtt ak mën a ko gën a gàtt ngir ku ne am nga ab diir bu gàtt doo dooru mën dara te boo fi yàggee te tëli nga door fee jóge te man soosu li muy gàtt gàtt moo yor alaaxira te alaaxira yemul fenn kon nee na boo ñëwee fii li ñu bëgg mooy nga fàggu ko Sëriñ Tuubaa itam loolu la jàngale ci Masaalikul Jinaan wax ne li gën ci li doomu aadama di xemmem bu wóojee suñu boroom mhm. nee na mooy dellusiwaat ci àddina donte senn saala mën cee jëf loo xam ne su demee fa moom dana ko jariñ kon nee na na nga góorgóorlu ba sa waxtu yépp nga bañ leen a sànk nee na ndax benn noyyi bu doomu aadama noyyi dafa taxaw taxawaayu wurus wu gànjaru woo xamante ni su xamoon valeur euh, dana ci mën a am koom moo xamante ni dootul jeex mm-hmm. waaye nag nee na loolu saa yoo ko defee ci loo xam ne matu ko woon nee na bis boo demee ba waxtu wi jeex nga xam ne nit ku nekk saa yi mu war a dund saa du ci dolliku saa du ci wàññiku li kulli ummatin ajrun fa iza jaa ajruhum laa yastaxiroon saahatan wala yastaxdimoona kon ay minute la yu ñu yu ñu bind teg ko mhm. wax ko nee loolu saa yoo nekkee ci kaw suuf di dox nga xam ni euh, sa téere jëf ubbi nañ ko mhm. ne na góor góor di ci jëf balaa bis bay ñëw boo xamante ni dañ koy def dootu ubbeeku mhm. ndax bu dee ci sirkul jaahiri sëñ Tuubaa mi ngi ciy wax ne ñi nekk ci seen bàmmeel te yu mel nii ay bisu nisfu Shahbaan ay kasu rajab ay yenn bis yu baax ci lislaam ay guddi ajjuma nee na bokk na ci suñu génne ci seen bàmmeel yi ñëw ci seen kër yi di sàkku ci seen mbokk yi ngir ñu ñaanal leen nee na bokk na ay kàddu yu tiis yu daw yaram leen di wax yoo xam ne bokk na ci ñun suñuy téere jëf tëj nañ ko te yéen seen téere jëf ubbi nañ ko kon ñun maanaam amatuñu lu ñu mën a jëf waaye mën ngeen a mu mu mel ni sëñ euh, Mourtada Seye euh, yàlla subhanahu wa taala la soob mu euh, sàkk doomu aadama yi wàcc ñu fi indi ñu ci kaw suuf mënoon ñu sax bàyyi ci ñu réer ci réer boo xam ni soo soo faatoo mu daal la yóbbu safara yàlla nañu ump. waaye yàlla la soob subhanahu wa taala ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu yónnee ñu ay yonent ngir ñu wooñu ci këru ci ci dëgg. Euh, dana am nag ñu gëm dana am ñoo xam dinañu weddi waaye dinañu dellu ci borom bi ñi gëm mu teral leen àjjana ñi weddi mu yóbbu leen ca safaan yàlla nañu ump kon yooyu yëpp nag faw ñu xam ko xam ni ñaar yi ñoo fi nekk te it ubbi suñu xel ci teel a xeeñtu borom bi subhanahu wa taala ci dëgg gi nga xam ni mooy lislaam dëgg la loolu faw ñu xam ko mhm. waaye yàlla suñu borom tamit sàkk na aw lay woo xam ne kenn du mën a wax ne xawma ko woon ndax wàcce na ay yonent wàcce na ab téere wàcce na ñoo xam ne jëf ju baax jooju waxtu nag ñu ngi koy soññe te di ko def muy dem kon fi ñu toll li nga xam ne mooy li am solo mm-hmm. mooy nit ki xam ne coow àddina ak raj-raj la àddina bañ ko yóbbu fenn mu xam ne mm-hmm. àddina gi ñu nekk dañu fi wàccee ngir ñu jaamu yàlla sunu borom dara bañ ñu feneti yóbbuñ ci loo xam ne danga fàtte loola ndax sëñ Saliou Mbacké yal na yàlla doon leeral mi ngi ñuy leeral ne dañuy gis ñoo xam ne ñu ngi tëb du yuuxu di dal te fekk ne julli ñaari rakk moo gënoon yomb loolu. Mhm. kon ñoom ci loo xam ne coono leen jural ay duma leen jural te fekk ne lu gën a yomb loolu. mi ngi seen wet. Mhm. te suñ ko defoon mu jur leen njëriñ tey jur leen njëriñ ëllëg. kon tey yi eh. day baax ñu fàttaliku waat ne. Mhm. àddina gii indiwuñu fi ngir xel ñu indi fi ngir ñu sax fi. indi mooy fi ngir yu bëggal ñu waaye dañu fay indi rek ngir lan ñu jaamu yàlla diir bu gàtt mel ne koo xam ne dafa nekkoon ci yoon jaar ci garab am ker ñoo fa tuuti seetlu ca ker ga takkaate bagage sam jàll àddina gi noonu ñu ko war a jàppee. Euh, moo di kon luñ ci mën a jàngat euh, jërëjëf sëñ Mourtada Seye sëñ Mouhamed Lamine Diouf ñu dikk kon ci xadiisu bis bi di jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu Mokhtar say ban eh, jàngale nga ñu tàndal. waaw addis bi nga xam ne moom la ñu indi tey eh, Abu Hurayra ñu ngi naan yàlla sunu borom wàcce ngërëmam ci moom. Mm-hmm. moo nettali ne yonente bi sallallahu alayhi dafa wax ne dafa wax lii mm-hmm. mooy gaaw leen gaawante leen ci jëf jëf ju baax balaa ngant ñëw mm-hmm. benn ci juróom-ñaari ngant yi bala moo ñëw gaaw leen ci jëf jëf ju baax juróom-ñaari ngant yi nag mooy yan mhm. bi njëkk mooy na ngeen jëf jëf ju baax bala ak ñàkk ñëw ndax ñàkk gi su ñëwee man leneen fàttaloo jëf jëf ju baax waaye illaa da ko bëgg a def waaye tële ko doo ko man kon na ngeen gaaw def jëf ju baax bala ak ñàkk ñëw ñaareel ba mu ne na ngeen gaaw jëf jëf ju baax fii nga xam ne da ngeen a woomle am alal da gaaw jëf-jëf ju baax balaa beewu ñëw ndax nit am na alal war a mën a jëf jëf ju baax jëf ju rafet liggéeyal yàlla waaye ak bew jàpp ko ba mënu koo def wala yaasu billaah kon neen na ngeen gaaw jëfe seen alal liggéeyal yàlla suñu borom jëf jëf ju baax jëf ju yiw balaa ak bew tàbbi leen ndax day jikko ju bon joo xam ne kum tàbbi ku mu nekk ci yow amaana jëf ju baax ak ju rafet dan la jafe ñetteel ba mu ne na ngeen góorgóorlu gaawantu jëf-jëf ju baax balaa ak wéré di ñëw ndax kat su wéré di xasee tàbbi da nga bëgg a def dara waaye sa kattanu yaram du la may ngir nga jëf jëf jooju kon nag na nga gaaw fi ñu toll nga xam ne yàlla def na nga am wér gu yaram mhm. nga gaaw nekk ci jëf jooju mu wéy ba tey ci ñeenteel bi na gaaw jëf-jëf ju baax ak jëf ju rafet balaa ak màggate ñëw ndax kenn ku nekk xam na ne ku nekk ñaar fukki at ak ku am téeméeri at duñ yem ci kattanu yaram duñ yem tamit amaana ci kattanu xel hmm. kon balaa nag ak mag a ñëw bay say doole di la bàyyi bay sax xalaat di wàññeeku nee na da gaaw jëf-jëf ju baax jooju hmm. ak jëf ju rafet jooju balaa nga koy tëlee juróomeel bi tamit nee na nañ gaaw jëf-jëf ju baax balaa ak faatoo ñëw ndax su faatu ñëwee ni ko sëñ Lamine waxee léegi kon day mel ne téere yi tëj nañ ko kenn du ko ubbeeti hmm. jeex na duñ mën a defati dara kon balaa ñuy àgg foofu nag nee na nañ gaaw jëf-jëf ju baax juróom-benneel bi nee na nañ gaaw jëf-jëf ju baax balaa masihu dajal agsi ndax fu masihu dajal agsee coono ak fitna moo nar a bari te loolu nañ ko bàyyi xel hmm. lu mën a ñëw la te su ñëwee ak ah, ah, coono te du tàggu kenn te coono boobu dana tax amaana nga yéene jëf-jëf ju baax sax mhm. waaye doo ko tal juróom-ñaareel bi nag bi ñu jeexalee nee neen def jëf ju baax balaa saa taxaw su saa taxawee bis bañ tàmbalee régler compte yi teg balance nee su boobaa danga bëgg jëf ju baax te doo ko man moo tax ku mën a juróom-ñaar yi nañ sàmmoonteeg loolu di góor jëf-jëf ju baax bala moo ñëw mën ñoo gaar ba lañ bëggoon duñ ko mën a def mhm. lii lépp muy fàttali ab jullit bi rek ne dañ ko wàccee ci ko suuf ngir jaamu yàlla rëddal ko aw yoon moom war a jaar am luñ ko diggal am luñ ko tere lay tax mu mën a texe ëllëg nag mooy mu sax ca lañ ko diggal lay tax mu mën a mucc ca safaan ba mooy waxtu mu nekk lañ tere mu bàyyi ko mën caa jaar. Euh, jërëjëf euh, sëñ euh, Mourtalla Seye sëñ Mouhamadou Lamine Diouf mu mel nii kon doomu aadama bi dafa war a teewlu ci àdduna xam ni Euh, dëgg la àdduna suñuy wax ñu sax yàqu-yàqu yi bari na lool waaye euh, lu baax euh, yàlla subhanahu wa taala moom moo fi nekk te xam nañ ñëpp dañuy dem te kenn ku nekk itam nga waajal sa bopp ba àdduna bañ laa fab bi mooy di li nga xamante ni moo di li am solo parce que àdduna bi moom kenn mënul fexe ba mu njëkk ndax noonu la ko yàlla subhanahu wa taala bindee waaye kenn ku nekk aussi nii sëñ Muxtala Sey wax nga waajal ko sa bopp Euh, ba yow àdduna du la yóbbu ci nga fàbbeeku loolu lu am solo la te muy dénkaane boo xamante ni euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko mu jëm ci nit ki xam ne àddina euh, sëñ bi nee na dafa mel nii day naxe ne ni muy naxaatee nag dafa mel nii rek génti kuy yàndoor tey ji soo doon gént mm-hmm. lu ne mën nga koo gént dara ju ne mën nga ko am ci gént gi xéwal gu ne mën nga ko ci am waaye boo yeewoo di nga xam ne yow da doon gént nee na nag àddina noonu la mel nee na dafa am euh, saa boo ci nekkee da ngay jàpp ne du jeex fekk na nee na misaal yi la suñu borom woon yëpp ci buur yi fi newoon mhm. li ñu yëlifoon borom alal yi fi nekkoon ñi nga xamante ni dañoo yoroon ay arma yor ngànnaay yor lépp loolu tey gisatoo leen dafa am bataaxal boo xamante ni Samba Lawbe mi nekkoon buur jox da ko mës a bind Sëñ Tuubaa doon ko ci wax way juróom jigéen woo xam ne dafa génn àddina ginnaaw bu ko sëñ bi jaalee ba noppi di ko waar nag ci bataaxal bi waar yu doy waar yoo xam ne te ne bokk na ci li mu ko wax nekkoon na nga xam ne nag dee moom nga xam ne moo jël sa way jur woowu ba gisatoo ko yow it balaa yàgg dina la jël ba say njaboot dootuñu la gis kon na nga xam ne dara desewal lu dul di ko ñaanal di ko misaal nag ci àddina ne ko ana sa ana sa mbokk ma silmaxa jóob muy Lat Joor ne ko ana ngànnaayam yi ak armam ba ak fasam yi ak mbooloo mu bari mu daa àndal ndax loolu fànq na dee ci moom ne ko kon nag na nga xalaat bu baax ci lii te boo jotee sama bataaxal bii nga góorgóorlu jëm ci jaamu yàlla te xam ne boo ko defee bu ëllëgee dinga am xéewal waaye boo ko deful it inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mhm. kon nga xam ne sëñ bi foofu wane na ni àddina amul solo moo tax nag sëñ bi bëgg nit ki di ko teele soo demee ci taw sixaar da ciy wax ne euh, fakkulu man baadara waxta sixaari illa lahu dastara waxtal kibari nee na képp koo xam ne bi nga nekkee ndaw mhm. góorgóorlu nga jëm ci ak njub nee na soo demee ba nekk mag dinga nga noppalu kon su fekkoon loolu weesu na nag li fi des mooy dab dabaatal wamanta daaraka lasi xat faata mina laxaa waxamaral aw xaata bi tawbati nafsi wal iqbaali ilal ilaahi faase bi kamal nee na kon su fekkoon nag dem nga sax ba li ëpp ci sa dund jàll nga am tawfiix yi xam ne yow kat jaaro woon ci yoon wa nga wëlbatiku bëgg caa jaaraat ne ni nga koy defee mooy da ngay dab dabaatal kon mooy wane ne am na loo xamante ne rawoon na la ba noppi ngay góorgóorlu nag di seet noo koy mën a wàññee mm-hmm. ak jublu ci yàlla suñu borom nee na loolu mooy tax li nga bëgg nga am ko kon juróom-ñaari yoon di saa wax yëpp bu ci ñëw rek wet beneen mu ngi tege ci wet gi ndax wér moo ko wér di ñoo ànd mën ak tëli ñoo ànd hmm. ndaw ak màgget ñoo ànd am ak ñàkk ñoo ànd waaye benn bu ci ne gannaaw bii da lay gane tey bu subaa bi ci des gane la dafa bëgg bi nga xamante ne su la ganee day fekk nga amuk mën saa bu ñëwee rek nga bañ ko jàppal hidd te jàpp ne bis dana ñëw nga yéene ko na nga ko yéene wante te doo ko mën hmm. mu lu am solo yoo xam ne mën nañ yooyu yëpp day tees di bàyyi ci xel bu baax Eh, te waajal bis boobu kon ñu daal di dikk ci li nga xamante ni moom moo di eh, xikma xikma di jàngale Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Mourtala Sey bismillah waaw xikmatu bi nga xam ne moom lañu indi tey ni nga ko jëlee ci téere sëñ bi nga xam ne moo tudd silkul jawaayir mm-hmm. soo demee ci téere bi ci page téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar sëñ bi am na lu muy fàttali lu muy jàngale muy lu am solo te ñu war a waxtu wu nekk di ko fàttaliku ndax mu ñuy wax ne am na téere bu ñuy wax sa jaratul yaqin ci biir téere boobu nag dañ ci leeral nit ki su faatoo ba ñu dugal ko ci biir bàmmeelam mm-hmm. la nga xam ne moom la fi njëkk fekk mm-hmm. ndax mu ngi xamal ne su nit ki faatoo bañ denc ko ba noppi da ñu wax ne euh, ñett dana topp nit ki ba ci bàmmeel bi benn dana fa des ñaar danañ dellu ñaar ñee dellu mooy alal ji ak njaboot gi ak mbokk mi bay des mooy jëfam yi waaye nee nag suñ ko dencee ba noppi ñëpp dellu nee na am na ñaari malaaka yoo xam ne danañ ko fa fekk ma malaaka ko nee na ñu ñuul kukk lañ hmm. seen bët yi dafa bleu nee na te it day génne ay ferñeent mel na ay melax yoo xam ne koy génnee hmm. seen baat suñu wax day mel ak dënu noonu lañ mel kon ñu ragal lu lañ nee na nag ñooñu suñ ñëwee seen bëñ yi lañuy xare suuf si ñoo dugg ci bàmmeel nee na suñ ñëwee nag hmm. euh, danañ bëgg a jàll mel na lu bëgg a jaar ci côté ndeyjoor bi jëm ci bopp ki faatu mm-hmm. nee na waaye suñ jógee di dem julli mooy jóg taxaw bari yoon bi mm-hmm. ne déedéet fii mun leen fee jaar man may julli mm-hmm. mal bari yoon wi mun a fee jaar ndax kat kii dara sax di julli guddeeg bëccëg ah. te lam jublu woon ci loola mooy bis bi dong suñ fi egsee kon du la may nga jaar fi ñu wëlbatikuwaat jaar côté càmmoñ bëgg a dem neen suñ fa jaaree mhm. sarax jóg ak léeg-léeg ne ko déedéet fii mënu fee jaar kii waxtu wu nekk dadaa saraxe waxtu wu nekk dadaa dimbale ñu néew doole te loolu la mu ko doon def mhm. bis bii moo taxoon kon fii duñ la may nga jaar fi mu wëlbatikuwaat bëgg jaaraat weneen yoon koor jóg taxaw ne ko mënul a fee jaar tamit baare ko yoon wi daawut lekk daawut naan waxtu wu nekk mi ngi daa woor di xiifal boppam lam si jublu woon mooy bis bii kon du mën a may nga jàll mm-hmm. ne su boobaa nag malaaka yi dañuy taxaw daal ko pëkk-pëkk mel ni kuy yee kuy nelaw mm-hmm. mu yow ñu laaj ko waa yow loo xam ci nit kii joxañ ko yonent bi mu ne leen kii de mooy sama yonent mooy ki nga xam yàlla suñu borom moo ko yónni diine ji indi moom laa gëm moom laa topp mooy sama yonent su ko defee malaka ne ko wax nga dëgg mm-hmm. ba ngay dund ab jullit nga woon waaye tamit ba ngay faatu jullit nga faatoo kon loolu muy li nga xam ne moom la njëkk a dajal mm-hmm. ci biir bàmmeel bi loolu nag ñu mën see jëlee am njàng mm-hmm. muy lan suñu jëf ju baax suñu jëf ju rafet ak suñu jaamu gi nga xam ne ñu ngi koy def ci kaw suuf moom lañu nekkal moom la ñu fekk si biir bàmmeel waaye alal yi dem na si yeneeni loxo ñu def ci leneen mu mën a doon lu baax mën a doon lu bon sunu njaboot bàyyi neen ci kaw suuf ñu mën a nekk ci loxo yu baax mm-hmm. mën a nekk ci loxo yu bon waaye sunu jëf nag moom dañuy ànd ak moom ci suñu biir bàmmeel muy leeral suñu bàmmeel mm-hmm. di yàkkal suñu bàmmeel di ñu wéttali ba bis bi nga xam ne dañuy daje suñu borom mm-hmm. kon lii rek du ay lépp waaye jàngalem diine la muy lan fala bu dee faatu dana am <laughs> su faatu amee laaj dana am ci biir bàmmeel su laaj dana am waaye tamit nag dëkki dana am réglé dana am kon lii lépp muy am jàngale moo xam ne sëñ Tuubaa mi ñu koy fàttali mm-hmm. ngir ñu góor góorlu ngir ñu farlu ci li nga xam ne moom la ñuy digal ak li nga xam ne moom la ñuy tere te mooy lu tax ñu ne jullit euh, mooy gëm yi nga xamante nii tegoo ci sa bët waaye nga gëm ko Eh, dana tax boo fa accès lu am benn jafe-jafe sëñ Mouhamadou Lamine Diouf. waaw loolu am solo la sëñ Moussa boo xoolee sëñ Mourtala indi na ponk boo xam ne dafay lu am solo ci ab jullit mu gëm ko jàpp ko ndax dafa bokk ci yi nga xam ne mooy euh, gëm yàlla suñu borom. Mhm. ay ponkam muy juróom-benn boo demee ci tësu sixaar ni ko sëñ bi jàngale bokk na ci yooyu gëm malaayika yi malaayika yooyu nag. seen lim kenn xamoo ko yàlla suñu borom mi leen sàkk rek moo ko xam mm. waaye def ci am fukk yoo xamante ne jullit bu nekk war naa xam seen tur xam lu ñuy liggéey bokk na ci ñooñu ku ñuy wax Munkar ak Nakiir sëñ bi wax ne ñoom li leen di defloo mooy laaj nit ki te li si mut wax boo ci téere bi nee na seen melokaan doy na waar boo xamante ni ñëpp leen ragal ba ci seen morom malaayika yi sax te nee na loolu amul wuute mm. nee li ñuy laaj nit ki nag nee na li ñu koy laaj ci tawhid rek laaju ci mbiri tawhidam rek lañ koy laaj te nee na laaj googu nag ajuñu ko ci ne wàcc na barab sàngam fii mooy bàmmeelam ku fa dem gis ko nee na bu fekkoon dafa doon ku faatu ci lakk ba kenn gisu ko ba mu def dóom nee dinañ ko laaj nee bu fekkoon ay ndëgmente dañ koo dogaale jëfandikoo ko dees na ko laaj su fekkoon dafa lap ba kenn gisatu ko dees na ko laaj bis bu na nga dégg ay jéew yu am yoo xamante ni mm. da dégg ñu naan nangam la ñu gis waaye ñi ci des mm-hmm. ay porte disparu maanaam mm-hmm. kin gisatu leen mm-hmm. nee na ñooñu ñëpp suñu borom may na leen ñoom kattanu mën mën mën leen laaj nee na li ñu leen laaj nag bokk na ci tawhid ndax li si mut wax buñ la laajee nee na euh, di nga gis koo xamante ne suñu ko laajee day tontu ci xel bu dal ak làmmiñ wu leer su ko defee ñu ko yow day bégal daal di koy yaawil bàmmeeram lu toll nii fa bëtam mën a yem ne ko tey jii de am nga texe ne ko nelawal ni nelaw yi seet koo mhm. xamante ni kon maanaam dangay nelaw te amoo dara loo xamante ni moom ngay xalaat nelaw jàmm waaw mhm. nee nag bu fekkee nag laaj nañ ko muy lëb-lëbal di di di di capp-cappal di logg loggal mënul wax mhm. nee na koy ree di ko yójji ne ko ah kon yow xamoo xamoo kan moo la sàkk xamoo koy sa borom xamoo luy luy alxuraan yow xaaral nee na daal di tàmbali jëflanteek moom loo xam ne nee na mbolde yi ñu koy dóor nee na bu ñu ko ko dóoree nee na soow mi di ko nam day génn hmm. te nee nañu mala yi sax dañuy dégg euh, yooyu duma waaw ndax sëñ bi sëñ bi nee na euh, ci euh, tësadu subaan nee na ki nga xamante ni moom la ñuy denc hmm. na ñi koy denc balaa ñu koy woon ginnaaw neen ni seen bàmmeel seen dàll yi di dalee neen da koy dégg nee ci jamono jooju nag ci li ñu yi sëñ bi nag nee na loolu yëpp liñ ci jublu rek mooy nit ki xam ne bis la boo xamante ne du mën du mën a ñàkk te faw dana ñëw nee na moo tax mu wax jëf yu baax yi nga xam ne nit ñi moom lañuy def ndax nee na am na ku wax ne man de dama ragal wéetu bàmmeel ragal lëndamaay bi ragal xataay bi ñu ne ko nag loo ko fàggoo mu ne jàng alxuraan ak julli guddi ak ak ak ak saraxe ak def lépp lu baax loo xamante ni tey nit ki su ko defee loolu bu ëllëgee day soppiku doon ay jëf yu baax ndax nit nee nit ki jëf yu baax yi mu daan def jëf yëpp su ko jëfee nee dañuy dem ca fa nga xamante ne fa lañ ko war a denc toog fa di ko fa xaar. Mm-hmm. nga xamante ne bu fa ñëwee rek. mooy si wax lu mu fa fekk rek mm-hmm. mooy loo xamante ne maanaam moo ko fa jëf moo tax mooy wax sëñ euh, Moustapha Seye ni buuxante bi jaru ko fi jëkkante bi jaru ko fi ndax incha allah kenn ku nekk dinañ la woo ci sa bis jox la sa convocation sa lettre nga daal di war a wuyu sa borom kenn du fa nekk euh, bàyyi ak doom ak euh, mbokk xarit kenn du fa nekk yaa fay wéet ak sa borom loolu kon incha kenn ku nekk di nga fa jaar su ko ne su ko defee waajal ni nga ko waxee ni nga ko waxee léegi waa ku nekk nga waajal sa bopp daal ci bis boobu ba nga xamante ni daal incha allah yàlla dina la dimbali ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa te jullit moom. Eh, macha allah eh, ñaan lay war a def ak di yaakaar ak di julli lu bëri ci yonent bi salaam ndax man dama gëm ni julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa eh, luy dimbali jullit la te rek mooy dimbali jullit sax ci ba ci biir bàmmeelam kon loolu moom lu ñu gëm la te nag doon na loo xamante ni wax dëgg yàlla mooy li tax jullit wax dëgg yàlla nekk nekk nekk féetee kaw lépp lépp lépp ci kaw suuf waaw kooku moom wax dëggee sa xel sax da ciy dal. bis bi nga xam ne alal du fa jëriñ njaboot du fa jëriñ jëf jëfi rek mooy fi jëriñ. loolu am na solo loolu li nga wax tamit si julli ci yonent bi ki nga xam ne mooy Cheikhul Khadim. Mm-hmm. def na ci loo xam ne kenn xam moom moom rek la <laughs> ndax da ko defoon muy ab liggéeyam. ndax doon liggéey ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo tax kon li nga xam ne mooy li am solo. Mm-hmm. mooy addina gi ñu nekk ñu xam ne du lu sax. Mm-hmm. suñu xamee du lu sax nag luy jeex la kon ñu waajal. kër googu nga xam ne li ñu jëm muy kër goo xam ne moom yëmut fenn. jërëjëf kon euh, sëñ Mourtalla Seye sëñ Mouhamadou Lamine Diouf ñu daal di dikk ci li nga xamante ni moom moo di Arminat xanaa kon ñaanal rek jullit ñëpp yal yàlla yërëm jéggal ñu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy li ma doon wax rek keroog ni barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit euh, li tax dafa foor ndax jullit amul dara dara loo xam ne daf koy def mu mu doon neen te yàlla subhanahu wa taala nu muy yërmandee yërm yërmandeem ci jullit euh, dafa yaatu kenn xamu nu mu toll te loolu nag chance la su fekkee jullit yàlla def na la ko nga xam ko nga sant ko yàlla xam ni am na ñoo xam defu leen jullit te ñu ngi def lu ne ci lu baax te mu wër ni ñooñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu wàccee ci seen borom it eh, lay ma leen doon fay ci àdduna bi lay yem amul dara lu mu leen dencal ca laaxira kon nag yow jullit mi nga xamante ni eh, yàlla def na la ko daal nga xam ne tàndoo ko sa bopp yàlla la ko defal ci barke yonent bi sa salaam ci yërmandeem ah kooku sant yàlla la bu baax a baax a baax dañu ñaan rek yàlla ci yàlla saxal mu rey ñu ci dekkil ñu ci te ñu xam ni rek eh, dalal xel yi ne incha allah jullit moom. place am àjjana la incha allah eh, ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, sëñ Mouhamadou Lamine kon daal dikk ci Arminaat Arminaat kon tey ji moo di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet. Mhm, waaw eh, mu dëppoo itam ci weeru shawal tey ñu tànn Arminaat bi ci datu hijriya mhm. muy weeru shawal atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Mhm. mu dëppoo dem gi nga xamante ne ci la Serigne Touba demoon ci Jolof. fi ñuy wax Mbàkke Baari hmm. nga xam ne soo demee ci Zaw Sakko Laxatuuf fii Jawaab Abdul Latif bi nga xam ne moo ko bindal boppam wax na ni maa ngi fa dem ci barab boobu nga xamante ni sama kër gi nga xamante ni maa ngi ko tabaxoon ci suufas Jolof hmm. ginnaaw boo xamante ni bataaxalu borom Ndar dikkee na ma ci kër googu nga xamante ni jàng ak jàngale rek moo taxoon ma def ko hmm. euh, Mbàkke Baari nag li fa yóbbu Sëñ Tuubaa mooy li nga xam ne moom la gisee woon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bi mu sañcee Tuubaa ba mu am juróom-ñaari at mm-hmm. atum juróom-ñaareel ba ci la gisee ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkkay daaru xudduus weeru ramadaanu xama bay sasin mm-hmm. bi mu duggee lixtikaaf sëriñ Abdou Lahad Mbacke nettali na ko ci waxtaan wu yaatu wu mu def ci woote màggal 1979 euh, mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo feeñu ànd ak saaba yi nga xamante ni ñoo di àndam te du tàgguk ñoom mm-hmm. nee na bi leen Serigne Touba gisee nag itim jëpp daal di bëgg jëm ci bokk ci ñooñee di ànd ak yonte bi yonte bi xamoon ne ko ñii de nga gis ñu ànd ak man dañoo tuuroon seen deret te tuur deret moom wéy na gannaaw nag tuur deret deesul ko santaane lenn lu mën a tax a bokk ci ñoom mm-hmm. day doon lu jafe loo xamante ni dañ koy yen nit te du ko àttan mm-hmm. te du ko bokk kenn ngir soo kii mën a bokk ne ko yow nag sa digganteeg ñeent fukki at ñetti weer moo ci des mën naa laa tëbal ñetti weer yu su tey daal lay def ngay xut bu samaan nee na sëñ sant ko lool gërëm ko lool ne ko lool day baax na lool waaye daal sama gis jël na ko sama bëgg-bëgg mooy mbooloo mi di ànd ak yow mu bokk ci mu ne ko yonente bi saa sam ne ko bari aana ko toll fii nga toll ma feeñoo ko nii ma la feeñoo mm-hmm. mu bañatee bëgg daal lu muy bokk ci mm-hmm. waaye lay tax mu bokk ci nag buñ ko ko yenee day mujj dañ koy dimbali wa ilaa daf fay doxee yàqule waaye kenn ku ko mës a ba bokk ci amagul hmm. su ma sañoon nag yow doo ci tàbbi ndax am nga ci man cofeel goo xamante ni cofeel gi nëbbuwut te it duma ma la mën a dimbali mukk ndax bu ma la ñu jàmm te du ma nangu ñu jàmm ngir kenn nee na Sëñ ko man daal dama xamul liñ ma yan lan lay doon hmm. ruugi it sàkku ma ko bàyyi xam lu mu àttan ak lu mu dul àttan waaye li ma mën a waat daal mooy ak lu ñu ma mën a yan bu ko ruugi attane sama jom dee ko yonte bi ne ko kon nag baax na li nga ma ñaan nangul naa la ko mhm. dara destul dul dëkk bi génn ko ngir aareesal na la ko ba aw ay di la fekk ba ba àddinay tukki mhm. kon nag génnal dëkk bi kon sëñ loolu mooy sababu bi sëñ Tuubaa wooree rek daal di génn dem Mbàkke Baari toogi fa nga xamante ne fa la def lim ba mu fa def euh, jaxase yeeg kalaame yi bari waaye loolu dëppoo la nga xamante ne moom la ko suñu borom waxoon wa iz yamkuru bika lazina kafaru li ko aw yaxtuluuka aw yuxrijuuka kon loolu mooy sababu dem gi Sëñ Tuubaa dem Mbàkke Baari ak diir ba fa nekk ak la ba dogal bi xew ci fukki fan ak juróom ci safar ñu jàpp ko yóbbu. <laughs> Eh, mu di lu am solo foofu baax na taxaw tuuti rek moo di gis nga eh, nitu yàlla yi eh, man dama koy faral di wax ni ñoom ay buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañu. Euh, seen lépp yërmande la seen tuur ku ko xam yërmande la ku bëgg seen njaboot yërmande la loolu yëpp yërmande la et nit ñi dañ ci war a def trop maandu ci euh, sopp leen ñoom ñëpp ndax euh, ëmbal kenn rek mbañeel mën naa jural nit musiba kon nag ñoo ñëpp dañu leen di sopp macha allah sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak ñu nit ñu yàlla yëpp sopp leen ñoom ñëpp xam ne ñoom ñëpp buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañu te lañ ñu sàkku ñoom ñëpp moo di texe àdduna ak laaxira kon foofu soo fa nekkee doo am benn jafe-jafe waaye nag su fekkee yaa ngi jiingat di def ni yooyu moom dafay daal di indi parce que kenn euh, kenn xamul mm-hmm. nitu yàlla boo boo boo boo boo ko boo ko boo ko boo ko boo boo boo ko euh, euh, ni ko waxee diingate mm-hmm. am na xadis bu ci leer bu ci yonent bi sallam wax képp euh, ku leen ku leen ku leen ku leen euh, dingat bañ déclaré naa la guerre te képp ku leen déclaré guerre te képp bañ déclaré naa la guerre su ma la déclaré guerre doo am foo génn. foofu sëñ Moussa dafa am euh, ñetti béy yu sëñ Tuubaa yoo xam ne. waaw mooy woowu sax képp noonu sama waaye dëkk naa la xare. nga xam ne moom maanaam léppam yërmaane dafa wax. naka yooyu ñaan suñu bopp ne bàyyi xel la. fokk lu man xadama ni aw zaara fan na ji wax fii lu aw zaara. wa kullu man ahabbani aw maala ilayya farzuquhu dan aw maala mhm. wa kullu man shatamani aw laama fahabluhu tawbata wa istislaama voilà fa kullu man asaa zannuhu biya fali ya xalib xalbuhu yaar biya mhm. mooy suñu borom képp ku ma sopp wala mu bëgg ma wala mu siyaare ma na nga ko may texe lu mu bëgg at mhm. nag àllaaxee na nga ko ko def koo xam ne nag euh, ŋàññ na ma na nga ko dimbali may ko mu tuub koo xam ne itam euh, noonoo ma na nga wëlbati xolam leen noonu ñun dañu leen sopp dañu leen di sopp bu baax a baax ak di leen tàqamtiku bu baax a baax macha allah euh, sëñ Mamadou Bokoum ñu ngi lay nuyu di la sant démb grand débat bi nga def ci woote rek ci maanaam julli ñëpp doon benn dafa bokk ci lii ci li ñu doon wax léegi léegi léegi ñëpp a ko rafetlu macha allah eh, yal nañ ci yàlla defal yiw te te lañ ci séntu lépp ci jullit ñi te sëñ Sidi Moxtaar Mbàkke xalif général kullu murit eh, bëgg ko ci wax dëgg yàlla yàlla mottali yéeneem ba jullit ñëpp doon benn ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa eh, am na ku ma doon tooñ sax ma bi nga solo ba sol koppate bi daal ma ah mais wañ sëñ moom ah nitu yàlla la ma ne ah, ma ni ko nitu yàlla nga wax ma ne nitu yàlla bi la <laughs> <laughs> <laughs> kon ñu daal di dikk kon ci euh, tënku xabaar yi bismillah jërëjëf kon Moussa ñu doore ko ak tey bëccëg bi nga xam ne moom la ñuy jagleel fii ci réewum senegal euh, di ko màggal lii di euh, garab xew-xew yi nag tey ñoo ngi koy amalee ci gox gi ñuy wax Malicounda nekk ci diwaanu Mbour ponk bi nga xam ne nag tànn nañ ko ren moom mooy fexe jëmbat ay garab waaye suñ ko jëmbatee rek toppatoo ko ba garab yooyu mun a jëriñ lii di askan wi ñu àddu wax ci mbirum njàng njàngale mi ak lii di résultat baccalauréat tàmbali rot ni ki démb euh, ci li nga xam ne moom mooy jury lycée li maamulaay foofu nag mun nañ ne résultat yi baax na baaxul ndax ci ñaari jury yi nga xam ne ñoo nekk foofu bi ñu génnee seeni i résultat Euh, benn jury bi moom téeméer boo jël euh, mun nañ ne juróom fukki ak ñeent am nañ li nga xam ne kon euh, moom mooy examen ñenn ñi am nañ dofis ñeneen ñi ñuy xaar oral ci beneen jury bi nag téeméer boo jël li nga xam ne jàllagum na yées na juróom fukk fii ci diwaanu Mbàkke nag ñoom ëllëg ci lycée bi la xaarandi lii di seen résultat ci wàllum njàng boobu sax xam ngeen ne ci biir examen yi am na ay candidats yoo xam ne dañ leen tegoon loxo ñu doon amal ab nju jaaj di ab tricher eh, ñëm nag ginnaaw bi ñu nangoo loolu eh, lii di xëy na eh, justice xaw naa dawal aw ab yërmande ndax teg na leen benn daanu kaso benn atu kaso boo xam ne duñ ko tëdd muy un an avec sursis waaye rëcceguñ nag ndax administration tamit dina joxe lii di daanam te ko moywul ñëm élèves yooyu dineen toog ay at yoo xam ne duñu amalati lii di examen wu baccalauréat ñu àddu wax ci ndaw li nga xam ne faatoon nañ ko alarba ca Grand Yoff l'enquête baa ngi wéy nag takk der bi nga xam ne moom lañ njortees ne moo ko faat jamono ji teg nañ ko loxo ba moo ngi ca camp Abdou jaase ministre de la justice nag dénk na lanquet bi waa DIC mi nga xam ne kon ñoom ñoo fas yéene amal lii di lanquet boobu di division des investigations euh, criminelles ñu jeexale ko ak réew mi nga xam ne kon moo dend ak ñun di Gambie njiit la foofu di Yaya Jammeh euh, moom nag baal na ñaar fukk ak juróom benn doomu réewum Sénégal euh, Sénégal yoo xam ne kon am na ay tooxi doon yoo xam ne defoon nañ ko ca dëkkam boobu euh, sénégalais yu sax waa ambassade bu Sénégal nekk ca Gambie kon mujje nañ leen a jël ba delloosiwaat leen fii ci suñu réew Euh, ñu ngi ko doon tudd léegi ci wàllu examen yi ndax ñu ngi ci période yi. Euh, da ngay dem ñii am ñii du ñu am may nag àdduna noonu la ko yàlla tëddee. Uh-huh. examen moom euh, noonu la ko yàlla tëddee et su ko defee ñi am. et ñu sant ñi amul ñu euh, kii waat rek góorgóorluwaat dén daal daal defaat yàlla nañ yàlla defal ñu ñëpp euh, ñu daal dikk kon ci li nga xamante ni moom moo di euh, ah. météo waaw météo li nga xam ne kon moom mooy ANACIM siiwal na ko ci bulletin bi nga xam ne génn na tey ci dimanche ji moom mooy ay taw yoo xam ne mun nañ ko séentu ci diwaat yu bëri ci réew mi fii ak ngoon ci li nga xam ne moom mooy penku réew mi lu mel ni kon Kédougou jëm Kolda waaye tamit ci bët saalumu réew mi euh, Ziguinchor euh, ci digg réew mi tamit lu mel ni Kaolack euh, Kaffrine ñoo ko fay xaarandi ngoon nag taw boobu mun naa ñëw ba laal fii ci diwaanu Njaareem waa météo tamit nee nañ taw googu mun naa yegg ba ca euh, ndakaaru tey ci dibéer ji démb ñu fàttali rek ay diwaan yu bëri li nga xam ne moom mooy ndox mi wàcc na fi fii ci diwaanu Touba. ak hmm. Njaareem euh, taw boobu tamit ci timis jëm gee. yegg na fi bu baax a baax waaw yegg na hmm. ci diwaanu ndakaaru euh, taw hmm. boobu dina doon lu baax ngir béykat yi. ak lii di sàmmkat yi ndax euh, béykat yi soxla woon nañ ko jur ñi tamit soxla woon nañ mbir moom mm-hmm. ci wàllum température yi rek ñu wax ca diwaanu Matam foofu ñoo ngi fay xaarandi tey fanweeri degré ak euh, juróom-ñeent podoor fanweeri degré ak juróom-ñett ca euh, Linguère fanweeri degré ak juróom-ñaar Euh, ci diwaanu Njaareem ñu fiy xaarandi fanweeri degré ak juróom-benn fanweeri degré ak juróom ñu koy xaarandi ci Kaolack ca Kaffrine ak ca Fatick euh, fanweeri degré ak ñaar ca diwaanu Tambacounda. Euh, ak Saint-Louis fanweeri degré ak benn ci Ndakaaru. jërëjëf sëñ Mouhamadou Lamine fàttali rek ni dénkaane sëñ bi ki ëllëg incha allah ci kaamil yi ñu war a wàcce ak sarax yi ñu war a def yooyu yëpp rek du loo xamante ni daf ñuy. sàkkul yiw ak yërmande borom bi subhanahu wa taala ndax tooñ yi bëri na lool ci kaw suuf ndax euh, ni ko mun taxa waxee te ñu dégg ko ci mhm. kàddoom mooy Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké sàkku na ci fépp foo xam ne jàkk nekk na fa mhm. wala jumaa mhm. wala bari bi demee noonu daara yooyu ñu jàng fa suba gën ngaa néew ñeenti kaamil alxuraan <coughs> muy loo xam ne itam ñu euh, fas ci ne dellu ci suñu borom ak tuub ak euh, boole ci itam sàkk sarax mhm. te itam ñaan suñu boroom jàmm ak euh, nawet bu barkeel mhm. ak itam ñaanaale itam nag bokki jullit yi nga xamante ni dañoo nekk fu ne ci lislaam te ku mhm. nekk gis na réew jullit yi jafe-jafe yi nga xamante am na fa muy loo xamante ni waxoon na ko ci jullikaay bi waaw dellu si waat na itam feddali ko di fàttali ne suba incha allah jërëjëf kon ñu fàggu ci bis boobu kon jërëjëf sëñ Mouhamadou Bakhoum waaw yaa ngi mooy fàttali julli bi acco bismillah ci la bokk ci jaamu yàlla yàlla bi la bokk <laughs> kon waaw julli googu ñu fàttali fajar kon amal nañ ko fii ci diwaanu Touba ak li mm-hmm. ko wër bi juróomi waxtu ci suba jotee fajar gi ba tegal fanweeri simili ak juróom tisbaar jàpp nañ ko bu benn waxtu jotee ba tegal ñeent fukki simili ak benn takkusaan bu ñeenti waxtu jotee ba tegal ñeent fukki simili ak benn euh, timis bu juróom-ñaari waxtu jotee di 19h ba tegal ñeent fukki simili lii di gée jàpp nañ ko bu juróom-ñetti waxtu jotee di 20h ba tegal juróom fukki simili ak juróom. jërëjëf euh, sëñ Mamadou El Bakkoum jërëjëf sëñ Mouhamadou Lamine Diouf kon ñu daal di dikk ci li nga xamante ni moom moo di xasida bis bi. kon ñu daal di dikk ci lii ma taxam ci bis bi sëñ Mouhamadou Lamine euh, balaa ñu dikk ci ak sëñ euh, Mourtala Seye ci xasida bis bi. Mm-hmm. kon muy waaw euh, ñu ngi ci ci juróom-ñeenti fan. ci Chawal muy bisu dibeer kon dibeer yi nga xam ne moom lañ ci wattandiku rek bokk na ci watu ak tàggoo. kon mm-hmm. yooyu lañ ci wattandiku suba itam incha allah di altine war a doon fukki fan ci Chawal moom itam altine kon bis la boo xam ne rafet na ci. watu ak ak kon ñu dellu waat ci sëñu Mourtalla Seye wax dëgg yàlla mu delluwaat ñu ci li nga xamante ni mooy ñuy dundal suñuy xol eh, di ñu dellu ci borom bi subhanahu wa taala ci barke yoonu salaam bismillah kon ci xasida bi waaw ci xasida mhm. téere sëñ bi ñu tudd ilhamu salaam mhm. moom lañ tàmbale woon eh, te bëgg see ñëwaat mhm. ndax téere bi juróom benn fukki bayit ak juróom benn la sëñ bi tamit ni ñu ko waxee woon rek day ab yarkat day koo xam ne day tàggatu ruu day koo xam ne li nga xam ne moom la xol soxla moom la ruu soxla ngir mën a dund mhm. waxtu wu nekk yitteem day jox ko loola kon ci ilhamu salaam Sëñ Tuubaa mi ngi yéete yéete ju kawe ndax mi ngi wane ne ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi ak yahuud Euh, ñoom dañoo xam ne dañoo waru dañoo sànku mm-hmm. yàlla sunu borom ñoru leen li nga xam ne moo leen ñor moo ñoom seen àdduna seen mbir bopp yépp ñooñu nag am na dem na ba àgg ci nit ñuul ñi ñoo xam ne gis giñ gis tedd ngay àddina gi am ak alal dañu am mu bari seen loxo dana ba ñu teg leen fenn ba yaakaar ne ñu tekki lañ mm-hmm. topp leen nag leen roy ci li nga xam ne moom la ñuy def ñoom tamit waru nañ naagu nañ ba ñu ngi wër àddina di jaay doole di jël alal nit lu nekk ñu koy def sëñ Tuubaa nag di ñu jàngal du ñu yar ngir ñu bañ a bokk ci ñoo xam ne dañoo rey ñooñu ñu ñu xamal ne ñoom dañu waru lañ kattan googu nga xam ne am nañ ko ak doole googu nga xam ne am nañ ko eh, day jeyal yàlla suñu borom rek waaye ëllëg ay dungu yu métti lañu fa am du ci mën a taxe nee nag waaye am na ñoo xam ne xamuñu loolu mhm. ñu ngi leen di roy ci seen melokaan di leen roy seenu doxin di leen ci lépp loo xam ne dañ koy def sëñ bi nag dañu tere nee na loolu buñ ko def ndax kat am na ñoo xam ne roy gañ leen di roy ci li ñuy def ak topp gañ leen topp ci lañuy def tax na sagg sàgg nañ seen diine nee na dem nañ ba àgg ci duñ julli waxtu su waxtu julli jotee ñu war a julli duñ ko julli wala suñ demee ba bëgg julli dañuy gaawantu këpp-këppal mel ne ganaar goo xam ne day wut lekk di cof di cof mhm. duñ rukkoo dal duñ sujjóot ba dal dooru jóg waaye leneen luñ def ak yàkkamti ak gaawantu luñ koy defee te loolu taxut julli jóg nee na ak teewlu mënuñu koo am am na ñoo xam ne sax bëgg dem seen yitte àddina rek dana tax ñu julli laata waxtu way jot ngir lan mën a dem seen yitte àddina am na ñoo xam ne danañ ko yéexe door koo def te suñ koy def dañuy gaawantu lool am na ñoo xam ne suñ koy def seen xel du fi nekk mi ngi dem ci seen yitte àddina alalu àddina ju ñuy wut ab dund bu ñuy taxaw wala leneen fàtte na yàlla suñu borom jum jum sakk sakk na loo xam ne mooy dem ci yow ci dund ak ci lépp waaye ñoom fàtte gi ñu fàtte loolu moo tax ñu ngi daw ba mujj doon jaamu loolu kon muy woo nag nee ay yéen jullit ñi ay yéen samay ñooñ yeewu leen ci xam ne loolu àddina moo leen jàpp moo leen wor yéen bu leen bokk ci loola te julli moom ku ko parax paraxe euh, malaake yi jël julli bi ne waa ji lu muy def jëlaat ko rek taf ko sa sa kanam kooku moom jaloo la ko ne ko ci moom borom bi soxlawu ko yal nañu ump julli yu mel noonu ndax it loolu moom bisimilah sëñ Mouhamadou lu am solo la ndax eh, julli dafa am julli am waaye lislaam mhm. eh, dafa am julli bu suñu boroom bëgg nit ki di ko def te loolu dafa bokk ci melokaan yi suñu boroom melal jullit ñi dëgg-dëgg li nga xamante ni jullit bu ko def mën ngaa am rafet njort ci ne li nga bëgg di ko am mu tàmbalee saaru muminuun xad daf laxal muminuun allazina hum fii salaatihim xaasihun mhm. muy ñi nga xamante ni suñuy julli ragal yàlla gi day fis ci lépp sëñ bi nag ne julli boo demee ci jawhar na fi dafa am bunt boo xamante ni sëñ da koo jagleel mm-hmm. julli ku ragal yàlla ni mu war a mel mm-hmm. mu ne boroom xam-xam yépp maase nañ ci xam ne julli eh, leer la goo xamante ni dafay feq ci xolub jullit bi nga xamante ni moo koy def nee nag li tax ñu bëgg nga farlu mooy seytaane xam gu mu xam ne leer googu day dugg ci xolu nit ki moo tax fépp fu mën a jaar ba kar ko ba du fa mën a agsi dina ko def kon nee na moo tax moytul booy julli càggante goo xamante ni mooy tax sa xol génn ci li ngay julli ba mujj sax seytaane dina foloo bu euh, bunt bi nga xamante ni moo ko jiitu nee na lépp loo xamante ni sax nit ki su doon julli tey mu mën a fàbbi am xelam su doon loo def ci sa poos la wala wala wala loo téye ci sa loxo wala loo sex ci sa gémmiñ loo xamante ni mën naa yàq julli gi mm-hmm. da ngay gis ci jàkk yi tey su ñu demee bay taxawal euh, balaa ñoo liqaam mm-hmm. am ko jóg ni ñu ngi fàttali mm-hmm. ñi nga xamante ni dañoo yor ay téléphone portable nañ ko fay ñi nga xamante ni itam dañoo yor lépp loo xamante ni lu mën a fabbi nit la ci xelam ci julli gi ñu dindi ko ndax dañoo bëgg nit ki euh, ginnaaw day tis tisi rek mu am ci tawféexi juróomi yoon yoo xamante ni mhm. dina mën a nag euh, xelam dal mhm. mu jël lépp teg ko jàkkaarlook suñu borom ndax sëñ bi nee na loolu mooy jullik ragal yàlla gi nga xamante ni mhm. nee boo ko bëggee def dangay ngay tàmbalee waajtaay wa ci njàpp ma soo noppee jëm ci julli gi ginnaaw boo déggee nodd gi boo gisee jàkk boo ci duggee da ngay euh, wérd wala ngay tudd yàlla mm-hmm. wala ngay teewlu kon loolu yëpp dañoo bëgg mu def ci nit ki nag teewlu goo xamante ni mm-hmm. balaa mu ñëw julli gi mu mën a am solo mm-hmm. nee na moo tax yonent bi saa sam waxoon ne julli ni muy def ci yéen mooy bu fekkoon am na kenn ci yéen koo xam ne dafa am ak dex gu jaar ci buntu këram bis bu ne mu sangu ci juróom yoon ndax dana deseeti benn tër benn tërim ñu ne ko ñu ne ko déedéet mu ne leen julli noonu la mel waaye suñu ne nag wax nañ ne inna saa tanha anil fahshaa'i mhm. wal munkar nee julli gi nga xamante ne moo lay tere def ab safaan tere la def yi nga xamante ni yëpp yu ñu tere la mhm. nee na mooy julli gu mel nii julli goo xamante ni boo ci duggee nen na nga xam ne saa su ne na sa xel dem ci ne sëgg yi ngay sëgg ak siggi yi ak sujjóot yi ak toog yi ak taxawaay yi mhm. ne loolu boo ko jàppee ay sëgg gi siggi la waaye ne jàppal ne ngir toroxlu la ak ragal suñu borom ak jaamu ko ak mokk ci kanamam ak won ko ne nangu nga njaam gi nga doon ci kanam moom mi nga xamante ne mooy mooy sang bi kon nee na loolu yëpp nag liñ ci jublu rek mooy ngir nit ki mën a mag deewlu. jërëjëf euh, sëñ euh, Mouhamadou Lamine Diouf euh, jërëjëf sëñ Mourtala Sey wolof dafay wax su lëkk lekkee alam war na ko gën a may cooy ndax dégg débat grand débat bi ñu def démb wax dëgg yàlla liggéey ngi yaa liggéey wax dëgg yàlla jàppale ñu ci baax a baax bañ taxawuñu ci <laughs> macha allah ci gëstu. Euh, ndax lu ne dañ koy réaliser ndax émission noonu lay doxe loolu itam wax dëgg dañ ci dañ la ci dañ la ci dañ la ci ndokkale itam bu baax a baax a baax nga feeñu loo ci ci télé bi waaye liggéey ba nga ci liggéey semaine yooyu yëpp lu jara xam la itam macha allah te yemul foofu rek ci fànn yu bëri bari bari bëri kon itam yàlla na yàlla fay yiw eh, ci ni ngay taxawee télévision bi ci yu bëri bëri macha allah eh, kon mbokk yi fii nañu daal di yem ak yéen eh, ba ëllëg ak jàmm di gërëm sant techniciens yi ak téléspectateurs yi ba ëllëg jàmm ci beneen numéro Asaba fii rek la ci Al Mouridiyyah TV amul feneen